ma commencé ci benn liggéey boo xamante dañoo tenir ay réunion ak mhm. euh, ñu jiite poste de santé yu commune Mermoz am yëpp parce que commune Mermoz Sacré-Cœur am na ñetti poste de santé mhm. donc bu Mermoz bu nekk Liberté 4 ak Kër Sër yi bu nekk Baobab mhm. même bu fekkee ni boobu privé la mais xam nga dañuy wax wax lu jëm ci santé publique ko nag santé publique moom boo koy wax rek waroo wax ni sax ci privé la wala fële la bokk parce que ñoom ñooñ fi nekkal askan wi. Mhm. ñu jot a réunir ak ñoom xool lu ñu soxla jéem tamit jéem a xool tamit waxtaan ak ñoom ci ñu jox ñu seen xalaat ak seen xam-xam pour ñu gën a mën a xeex affaire bi c'est dans ce cadre-là que le maire d'abord a dégagé un budget de 17 millions. Mhm. pour euh, ñoom jëndal leen ay euh, matériel ak équipement yoo xam ne dina leen permettre ñu mun a fagaru ba pare aussi ñu mun a jël euh, nu ma tuddati sax seen i patients wala nit yoo xamante xaw nañ am yenn symptômes Mhm. jël leen moom en charge ba di mën a continuer liggéey bi ak euh, autorité euh, compétente yi mhm. mhm. voilà muy lu rafet loo xam ne tey jii ku nekk raw mën nga lëkkaloo ak district de sanitaire yi nga xam ne mi ngi sa koñ wala lu jëm ci poste de santé yooyu euh, pour rek li nga xam ne moom mooy wàllum wérgu yaram li jëm ci aide alimentaire dafa mel ni Mermoz euh, Sacré Cœur euh, xaaru ci mm-hmm. aide alimentaire yi nga xam ne dafay jógee ci nguur gi am na budget bu am solo bu ngeen débloqué ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca commune Mermoz Sacré Cœur ce que mën nga ci indiwaat ay leeral. waaw lu jëm ci aide alimentaire yi. xam nga feebar bi dafa nekk loo xamante dafay affecté drastiquement ci économie dëkk yëpp mhm. donc ce qui fait baana baana bi wala mécanicien bi pour mu mën liggéey sax normalement xaw na métti mhm. te ku liggéeyul nag waroo mën a doo am loo yóbbu kër ga ba ñuy war ci mën a jëfandikoo war a ba war mën a lekk mhm. ci loolu nag le le maire Barthélémy Dias basé wu ba ne ah foog dañu ne nit yi nañu toog seen kër yi su fekkee toog bu ñu toogee seen kër yi il faut que tam ñu dund su fekkee demuñu liggéey nag nan na ñuy def ba dund. moo tax ma ne xaaral ñu jéem a ut solution au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mhm. solution bi moo nekkoon njëkk a benn budget bu cent millions. Mhm. budget bu cent millions boobu noonu ñu ngi ci jënd ay ceeb ak dëwlin pâte alimentaire tomate ak lépp lu mu àndal juste pour jëbbal ko population bi. ñu teg ci ñaari fan mu ne loolu doyul. Mhm. parce que tamit am na ay sénégalais ñoo xamante ñoo ñu bitim réew. te bitim réew ñëpp xam nañ ni tey. xaw na soo lool ba nga xam ne suñu mbokku sénégalais ñu demoon di moodu moodu pour ñu mën a yónnee ci seen njaboot sax dina nekk lu xaw a jafe c'est pour cette raison mu ne ah tey ñoo ci boolee tamit nit ku nekk bitim réew mm-hmm. loolu moo ñu indi plateforme bi cest à tey ñëpp ñu nekk bitim réew nga xam ne dañ jàppale seen njaboot di leen yónni fukki junni mm-hmm. vingt cinq mille pour njaboot ji mën a euh, euh, pour njaboot ji mun a dund fii ci ndakaaru Njaay loolu mënatuñ ko ñu Mermoz Sacré-Cœur ñu ne xaar ñu jéem a xool na lañ ci mën a indi suñu pierre bi ci ñu créé benn plateforme plateforme boobu nag boo nekkee bitim réew boo nekkee commune Mermoz Sacré-Cœur mun nga ci inscrire boo ci inscrire nag di nga di nañ distribuer lu toll ci mille cinq cent bons d'achat mhm. bons d'achat yooyu nag di ngay dem ci benn supermarché mhm. bu nekk fii ci euh, Ndakaaru Njaay pour mën a ndugg pour mun a continuer dundal sa njaboot mhm. yooyu mooy mesure ñu jot jël ci côté alimentaire fii ci commune euh, Mermoz Sacré-Cœur. d' accord ñu gis tamit euh, seen maire renoncé na pour six mois. Mhm. Euh, li nga xam ne moom mooy salaire boobu la koppar yi dafay dugg ci li nga xam ne mooy aide yi wala. Mhm. déggatuma la déggatuma la la. voilà ma ne li nga xam ne mooy seen maire di Barthélémy Dias. bi yëf yi mhm. amee muy wax ak askan wi. dafa renoncé rek li nga xam ne mooy payoram lu jëm ci six mois du la xaalis ma ne ndax xaalis boobu dafay dugg rek ci li nga xam ne mooy aide yi. ndax xaalis boobu dafay dugg ci. aide yi nga xam ne ngeen koy joxe. allo lu lu ngay wax moo ñu dagg nga ne ndax xaalis boobu. ma ne ndax xaalis bi nga xam ne moom la naroon na dafa ne renoncé na li nga xam ne mooy salaire am. waaw waaw pour 6 mois. waaw waaw ma ne boobu la xaalis dangeen ko jël boole ko ci aide yi wala fan lay dem. waaw dafa ñëw book ci aide yi parce que maa ngi expliqué déjà xaaral sax ma gën a leeral askan bi. xaalis bi lépp fu mu jóge mhm. parce que xaalis bi lépp boo ñu toll ci cent cinquante millions mhm. cent millions yu njëkk yi nu ñu def ba rassembler ko mhm. mooy dañoo ne ah comme que période bi dafa xaw a jaxasoo te amoon na tamit ay programme yoo xam ne dafa bokkoon suñu budget da nga xam ne période bii lañ ko waroon def muy lan lu jëm ci aji màkk mooy lu jëm ci secours pak mooy lu jëm ci ay dem ak rom mooy lu jëm ci euh, nu mu tuddati sax euh, nu mu tuddati tabaski loolu yëpp buñ ko boolee xaalis bu takku la woon moo tolloon presque ci cent millions. Mhm. loolu lu ñu jël ñu ne comme que marque mhm. ñoom ci boppam ndax feebar bi teg nañ seen bunt. Rome ñoom ci boppam ndax feebar bi teg nañ tamit nit fii instant mënul taw sax peetu pat ndax feebar bi. Mhm. dañuy jël loolu yëpp ñu génnee ko boole ko ci combat bi euh, bi ñuy wax bu dem ci xeex coronavirus loolu njëkk indi cent million d'accord ñu teg ci ñaari fan. mu ne dolli nañ ci cinquante millions cinquante millions yooyu noonu lu ko indi mooy carburant boo xam ne administration moom la am parce que ñëpp xam nañ ni administration dañu am carburant pour mun a euh, nu mu tudd liggéey. Mm-hmm. mu jël ko xaaj ko ci ñaar. d'accord waaw mais benn partie bi day jëm ci xeex bi. Mm-hmm. à part carburant bi ñëpp xam nañ ñu tamit administration day am lu ñuy woowe ay mission à l'étranger. frais mm-hmm. de mission yeeg billets yeeg yooyu yëpp ñu jël ko tamit xaaj ko ci ñaar. dolli ko ci xeex bi. d'accord mu tamit mu ne am na moom ay indemnité mu ne année bi ci douze mois la donc six mois yi day jël indemnité yi xaaj ko mhm. dolli ko ci euh, xeex bi loolu moom moo indi beneen cinquante millions yi mhm. ba nga xam ne lépp lépp lépp lépp lépp mat na cent cinquante millions parce que lépp tamit dañ ko teg rek ci transparence mhm. nekkuñu ne dañuy dem xool nuñ koy lijjanteeg déedéet xaalis bi budget bi dafa amoon nu mu bindoo dafa amoon ay rubrique rubrique yooyu noonu ak projet yooyu yëpp ñu xam ne dañ ko naroon def yooyu la jël annulé ko parce que jiital xeex bi parce que xeex bi nag wax dëgg mooy prioritaire ci lépp. nit jamono ji mënul tal ak mag mënul tal fet pak mënul tag tal ay sëkku mënul sax tal tabat ki tànk feebar bi moom ci dëkk bi moo tax ni moom la ñu prioriser ba def ko noonu. ok euh, ma bàyyi la ak Pape Maguette moom it mu am lu mu ci sànni. maa ngi leen di gërëm. Euh, non non ma ne ma bàyyi la ak Pape Maguette sama naataango bi allo. allo bàyyi mu ma bàyyi la ak euh, Pape Maguette. Hmm. waaw waaw maa ngi waaw. waaw le maire foo jëm xanaa da ngay añi. Ah, <laughs> dama déggul woon bu baax. ah d'accord. aha ah, waaw yow premièrement damay def benn contribution rek par rapport ak euh, seen stratégie bi ngeen teg maanaam koppar yi ngeen dajale lépp rek bàyyi lu bëri mooy euh, ci. ak yeeg ci aji màkka yeeg ak rom yeeg yeneen seen ñoom seen ñoom ni ngeen réfléchir ba dajale loolu ba jox ko askan bi foofu maa ngi leen di mm. euh, féliciter parce que ay borom xel ngeen te yéen a ngi toog di xalaat man kay li may laaj est-ce que yeneen maire yi ba xam yéen li ngeen am yooyu noonu maanaam cinquante millions yeeg carburant beeg nanga nanga est-ce que yeneen maire yi am nañ am nañ loolu est-ce que a tolloo montant tamit yoo leen yi am non xam nga yàlla moom moo njëkk bind te yemalewul. Mm-hmm. dëgg la fii bu ñuy jël budget am na mairie yoo xam ñoo ñu ëpp budget am na ñoo xam tam ñoo leen ëppale. Mm-hmm. waaw loolu moom am na. Mm-hmm. mais teewul tam rubrique yu ñu jot a wax nii yëpp. bu rubrique yooyu moom am na ci administration bu ne. ok ok parce que administration boo gis. dëgg am na lu ñu wooyee dotation carburant. waaw boo ci gis tamit am na tamit euh, lu ñu woowee secours pack et Mm-hmm. am na yeneen rubrique yoo xamante bokk na ci mm-hmm. te nu mu la ko waxee rek ñun noonu daal nañ ko defee d'accord nga xam ni dañoo jël lépp loo xam ne ñu ngi ko waroon def comme projet mm-hmm. ci mois d'avril mai juin yooyu daal nañ jël ñu jël ko yóbbu ko ci lu jëm ci xeex bi nii d'accord parce que xeex bi daal mooy période monsieur le maire joxe bi rafet na ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mais dafa am loo xam ne lu am solo la te ñu ngi koy gis bëccëg bi nee naa bu bëccëg bi jotee dafay mel ni gars yi dañu namante ay at dajaloo yeeg groupe yi fan ngeen toll ba tey ci sensibilisation askan bi. ndax baax lu ngay mu ne. nga ne. ma ni. allo. waaw maa ngi lay dégg. waaw ma ni monsieur le maire euh, joxe koppar yeeg ndimbal yi yëpp am na solo bu baax a baax ñu ngi koy rafetlu. mais gannaaw loolu ñi ngi xool ba tey le ministre la santé ak tamit médecin yi ba tey ñu ngi sàkku ci nit ñi ñu bàyyi dajaloo yeeg ñu toog seen kër mais est-ce que yéen à votre niveau yéen ngi continuer di sensibiliser ñi nga xamante ni tey ñooy def ay dajaloo naan caay nag naan café lu ne est-ce que loolu yéen a ngi siy bay seen waar bu baax a baax. waaw fëcc ci commune Mermoz Sacré-Cœur yàlla def na ni ba formé woon nañu ay volontaires yoo xamante ñoom ñoo nekk ci lu jëm ci loolu. muy mhm. au moins di gën a sensibiliser population bi. man mii di wax ak yéen da xam ne man maa yor jokkoo bi ci commune Mermoz Sacré-Cœur agriculture tey sax am nañ benn campagne de communication bu ñu war a def. Mm-hmm. lu jëm ci ay distribuer ay flyers ak afficher ay flyers ci koñ ba nga xam ni bépp kër boo dugg balaa ngay sax egg ci kër gi di nga gis ñu lay afficher nii da nga war a raxas seen loxo. Mm-hmm. war a tamit respecter lu ñuy woowee distanciation sociale bi. war tamit respecter lépp loo xamante. mooy mesure yu autorité sanitaire yu jël fii ci Sénégal. Mhm. Mhm. d' accord ñu ngi lay euh, jaajëfal ci dis disponibilité bi nga xam ne am nga ko ak leeral yi nga xam ne andi nga ko par rapport ak budget bi ngeen euh, génnee ngir askan wi nga xam ne ñoo dëkkee foofu. alors euh, Pape léegi nag ñi nga xam ne dañoo dëkkoon ay HLM ak dëkk Cambérène nag yooyu bëggoon na ñëw foofu pour benn di rek ngir distribution bi nu ñuy def. dégguma ñi bëgg a ñëw toxu si noonu pour am ci euh, euh, euh, denrée alimentaire yi ñooñu ñooñu bu ñu am dara lu leen metti ah. parce que tey ville de Dakar uh-huh. comme nu mu la yónnee woon démb sax message ba am nañ lu ñuy woowee cérémonie de remise donc de denrées alimentaires aux dix neuf communes d'accord ville de Dakar dinañ fexe ba dix commune communes commune euh, yu yu Dakar am mhm. ñu yónnee fa lu toll ci vingt tonnes ci mhm. daara alimentaire ak mhm. yeneen ak yeneen yu mu àndal donc ce qui fait que bu amul woon moyen boo xamante dina ko mën a permettre mu mën a jàppale population am ville de Dakar dina ko matale ba xam ne xeex bi daal nu mu ko waxee rek xeex boo xamante na général gars yi moom soxlootuñu ñu ne dañuy toxu mbir moom Sacré-Cœur mm. soxlootuñu ne ñu dañuy ñëw kii soxlootul lool parce que mbooloo daal mooy doole. Mm. d'accord te yaakaar naa ne xeex bi moom nekkatul xeexu commune bi wala xeexu commune ba wala parti euh, politique bi wala parti comme politique bële. Mm-hmm. parce que wax dëgg feebar bi képp koo xamante dal na la wala ku mu jàpp balaa euh, quoi que ce soit boo tourné da xool bi gis ne sa mbokk la sa dëkkandoo la. Mm-hmm. donc nag dëkkandoo moom mbokk ko waxee Euh, nu mu tudd dagg-dagg amatul benn euh, na laa ko mën a sax waxte appartenance politique wala sax appartenance bu jëm ci affaire zone. Mm-hmm. d'accord ñu ngi lay remercier bu baax. maa ngi leen di fay ngoone. merci beaucoup di leen remercier ci invitation bi ba pare aussi di rafetlu seen liggéey. merci yéen waa seen merci beaucoup alors Pape euh, ki yoru koom gi.